yaa ngi dégg bala muy ubbi laay bi tey maa la may faveur boobu bëgg nga am daraja ca sëñ ba parce que moo lay yóbbu àjjana ñëwal dama lay dugal na nga taal nag sa caméra ñun ñaar kese kenn yéegul man ak yow kese maa ngi lay jël boo amee samay info loo am ci man jëlal jëlal ñu tàmbali maa ak yow kese ñu def ko ñaari écran yu tolloo maa ak yow kese jëlal sànni naa la invitation te yow laay ubbee ba noppi nag jalan ala xaaral xaaral dakal sa domi dakal sa domi dakal sa domi ma def ko deux écran ñu def écran non sama domi lay tek kay day tek ci caméra bi non non dama bëgg dama bëgg dama bëgg dama bëgg nga dégg yaa ngi dégg da nga ñëw pour waxtaan waaw waaw ay da ñëw pour wax loola naqari taalal sa caméra ñu jàkkaarloo ñu waxtaan ab sëriñ ngay défendre nitu diine nga bu ko taal sa caméra. sama lay mayaat sens ma wax ko ci kanamu ñëpp sëriñ ngay défendre waa defal ndànk defal defal ndànk man maa la invité man maa la invité man maa la invité man maa la invité.

woowuma leen wa Pastef ak ñi and ak Pastef ñom kese la wo kenen ku ngeen gis ta andul ak Pastef ak wa Pastef waxuma ngeen mitel mako ko bloqué len ko bëggatuma mu gis ma bëgguma sax ñu daje àlla àllaaxira est-ce que dégg man awma démocratie te dewuma njaaxaanaay négocié wuma xarito wuma xamanté wuma ak yeen sen Sénégal ak sama Sénégal bokku man sama Sénégal Pastef koy dundal yeen sen Sénégal ki koy dundal dem na Maroc li ngeen di def ci réew mi nag moo ma jaaxal dee leen ma bolokel mu boloke boole ko muté nga xam ne dootul ñëwati bu ma ko fekkee ci paas bi raye ko complètement dootuma gisati ilaa yow mi diin na leer est-ce que leer na kon ku fi ñëw te bokkoo ci waa Pastef yaa ma tooñ man waa Pastef laa woo ak ñi bëgg jàmm ci réew mi ñi nga xam ne ñooy waa ëxlu jàmm ëxlu àjjana safara soxlawuma ko fi est-ce que na bu leen ma tappateel buleen ma defal dara dégg ngeen voilà ku fi dugg nag te faral loo Pastef jàppal ne añ nga sa sëru yaay nga dugg ci biir toog loo fi gis rek yaa ngi gis sa caapa yaay na leer ku fi ñëw te bokkoo Pastef ubbi nga sa sëru yaay dugg ci biir toog te bokkoo Pastef est-ce que na est ce que li wax leer na wala leerut waa Pastef lay waxtaanal de ñun ñi bëgg jàmm lay waxtaanal de ku fi dugg si ta bokkoo Pastef yaa xam foo bokk foo mën a bokk rek ci leader politique yi fi ne ki génn nag ñi fi toog te nekk ñu Pastef ubbi nga sa biir becco yaay nga toog di yërlu loo fi gis sama musóor gi boo ko gisee jàppal na sa bosu yaay benn nit dégg ngeen bu kenn dugg leer na taali leen ngeen campagne man damay campagne est ce que dégg ngeen ku fi commenté nag yaa tooñ ku fi commenté rek xam nañ ne dugg nga sa biir becco yaay dañuy gars yi dinañ tudd sa tur ne dugg nga sa becco yaay loolu laa joxe ci sama kër gi te déew ma jaaxaanaay dama reew dama xamadi waaye ci biir Pastef laa yem ku fi dugg si rek añ nga sa becco yaay dugg ci toog na leer de mbaa leer na binda leen ma leer na ba pare ñu ko di parce que problème laay bañ leer na voilà ñu continuer <coughs> xaaral ma muslu am ngeen am ngeen leader li ngeen di wax doy na leen am ngeen fu ngeen ko jaay lu ngeen def kër jàmbur yi bu ngeen wootee nit ñu ñëw lu ngeen def kër jàmbur yi waaye nañu ji restez chez vous restez chez reste chez nous ah lii nag kenn koo gis fàttali ñu fàttali yaay ak pa yi lay waxal nak ñi gaaw faté campagne bi gis nga ñoom Barthélémy Dias ak Macky Sall borom audio yi ñom ñep li lañuy préparer bloqué dëkk bi dama leen koy fàttali parce que da ngeen gaaw faté até ñu tek amo majorité kan ngeen nomé fi hein noy def amo majorité. Ah, non bo boo lo dama né même en France. dama né euh Macron n'a pas la n'a pas la n'a pas la majorité. bon ok su la nexé ma défé ko dañen waaw bon ñun ñu am suñu majorité. nga nekk ñun dañu toog primature du noonu waaw ah, d' accord budget bu ngeen indi ñu ñu rejeté ko ngeen wax ñu fan ngeen di gouverner avion du naaw oto du daw salaire duñ ko fay vous n'avez pas de majorité vous ne pouvez pas exercer le pouvoir tey vous exercez le pouvoir parce que vous avez la majorité ma laaj la beneen question lu tax gars yi dissout assemblée nationale il dissout l'assemblée nationale parce que le pouvoir de l'assemblée est interconnecté avec le fonctionnement de l'exécutif tay président Macky Sall lu tax mu def kenn pour que le le président de l'Assemblée nationale ne vienne pas de Yewwi Askan Wi. dégg Anta Baba Ngom ñom Barthélémy Dias ñom numu mu ah numu Mimi qui ah, ki numu tuddati bugan Gueye Dany koy woowe Bougane dimbal leen ma Khalifa Sall wa Pire ñi nga nenañ ci diine lañuy nee nañ ñoom li ñuy ñëw ci yéen yépp mooy ngeen jox leen ay ay voix pour que ñu mun a bloquer seen dëkk est-ce que yéen may dégg waa piir mi nga xam ne ndeysaan baayam ji daa bëggoon réew mi trop moom nee na tey daa taxawe tànk yi bloquer réew mi ak ñoom xalifa Sall maanaam oto yi ñuy daw di dugg seen biir li ñu soxla ngeen jox leen majorité boo xam ne ñoom dañuy bloquer dëkk bi ba Ousmane Sonko dañ koy wàcce Diomaye ñu wàcce maanaam avion du daw dootu leen seen doom yi tukki dootu ñu ñëwati kenn dootul ñëw réew mi kenn du ko mën a gouverner loolu la Barthélémy Dias wax nee na moom lañ jox baatu opposition bi ñoom nee nañ ci loolu la ñuy dox bëgg ngeen ko wala bëggu leen ko le 17 lañ ci xam dara ki yéen rek la des réew mi nag xam naa ne boo newoon damay suule ay néew dañu bëgg a def dëkk bii suulukaayu néew dina am ñu ci bëgg dina am ñu ci ànd ak yéen pap Seck nee ma waxal ci rebel yi Pape Seck yow xana déggoo li ma wax xana xamone li nga wax ni rek yang ko waxe ci sa bir becco yaay pap Seck li ma wax ni yang ngi ko waxee sa bir becco yaay parce que yow boko fi bu amé ben rebel moy Macky Sall mom mi daw kal ko ci ay audio ñemewut a wàcc mënta voté bëgguñu votel ko koku moy ben rebel bu Sénégal ba mu daj ak ñan ñiko top Antoine John Moussa Fall ak kan yow mi nga xamne 40000 nga daan jël pour wer ay nit ñu tëj leen kasso ñun déggu leen ba tay ñu japp benn partisan APR bu génn ci mbedd bi di taxawal déggu leen ko de dégg ko ñu japp ci audio ndax buñ doon japp audio tay sa bay maki nee nañ ndeyam nërëj dugal kasso parce que ci ay audio la doon japp nit way kat ba audio la ko jappé won xalé bu mëna way ba audio la fermé carrière audio tay mo dakk audio kuy audio xaram ma indi la audio yi yow yow accélérer nga ma sax pap sec mais nak buma sañon tok bi nga tok sa bir beccay ay nga genn live bi nga dem parce que man waxuma ak yow waxuma ak sa wa keur maké nga Maroc fexe leen mu ñew néna ñewum ñëwam nekkagul ma gëna xam lu muy wax yépp xam nga fi tok fi nak mom da ngay sonna sa bop rek ñun am nañ fuñ waxé dé de demal nga wuti fo waxé gis na François Hélène gay néna bayina len ngi ñew ci mom néna bayina len mom fu mu caaxaane lay wut day caaxaan rek ma ñëw ci audio yi ma ñëw ci audio yi audio yi audio yi ma ñëw ci audio yi audio yi monsieur audio le meilleur liveur du monde adim samb santaat naa la gërëm naa la kaddu gi nga wax isma jom nekk na kaddu gu rafet dégg naa lool it bi ma ko gisee démb ci ndaje touba bi moom mu asgor waaye yow it yaa si yaay gor yaay as gor te kàddu gi nga wax ah kenn ku ne waroon na ko déglu nag ndax àdduna dafa gàtt te it jarul ñaaw waaye daal yàggan naa sa audio bi war na yaatu bu baax a baax a baax nit ñi delloo si seen xel te xam ne it ñu baax démb bër di démb koy def ñu si def nag ah xëy na war man li ma rey ci audio bi yeg mooy audio bi war na yaatu bu baax a baax a baax ma nga def partage Macky mi fi doon jàppaate ndax audio xam nga lii lii fan ngeen koy waxe ngeen dem président de la république anamu xaaral ma andil leen ko ba pare xaaral ma andil leen ko kii kii kii du kii du Macky c'est-à-dire mënoo ñëw ci réew tànn na yow lépp lu charte réew mi wax yow da ngay def le contraire ngay yàq charte yi ça veut dire que réew mi day yàqu réew nag bu yàqoo mais amatul dara lu fi taxaw dara amatul parti politique syndicat kenn dootu fi am benn droit te leen réew yi mu am ndax di ngeen fa nekk naan leader de parti la wala doo leen wax bu ne pas droit la parole te boo waxee ñu tëj leen ci kaso yi ba pare rey leen et c'est ce qui se passe donc on a intérêt à préserver ñu sàmm réew mi li ñuy wut ñu wut ko si njekk ak teranga ak gëm yàlla xam ne boo ko tuddee kenn mënu si dara kenn mënu ko xañ mais bu ko tuddul mënoo si def dara boo andee asamaan ak ci biir doo fi nekk tus. benn ko kii moo fi doon wax lii kii moo bëgg a xam gëmloo nit ñi que ni àdduna bi dara àdduna yàggut ba naan partagé leen audio bi na yaatu waaye ki muy gaarawaale nag xam naa ne mën na boppam war na mën boppam mbay peex audio bi mbay peex ko. jàngal rek àdduna. <laughs> Xadim Samb santaat naa la gërëm naa la kaddu gi nga wax Isma Diom nekk na kaddu gu rafet dégg naa lool it bi ma ko gisee démb ci ndaje Touba bi moom it mu as gor waaye yow it yaa yaay gor yaay as gor te kaddu gi nga wax ah kenn ku ne waroon na ko déglu nag ndax àdduna dafa gàtt te it jarul ñaaw waaye daal yàggan naa sa audio bi war na yaatu bu baax a baax a baax nit ñi delloo xel te xam ne it ñi doon baax démb ak barki démb ba tey ñu ngi koy def voilà ñu si def nag ah xëy na war nañ leen jàngalaat rek àdduna waaye kàddu gi daal rafetlu naa ko lool jërëjëf jërëjëf xaadim góor dëgg nga doo wax billaahi doo wote doo wote laa wax wote doo ko def doo wote <laughs> jarul audio jarul nagam waaye waaye Ousmane xam nga Macky Sall yow ku ñàkk jom nga yow yow fii lañ fi doon toog daaw naan la Macky sa kanam gi bàyyil di ñu ko ne dàng del audio del audio del audio nga dëgër bopp ndekete doomeram ji li nga làqatu ci suuf yëpp yaa ngi entraîné lonk audio Macky dàq nday lonk audio Macky buy lonk audio du am arrêt ñun sax bu ñuy lonk audio dinañ respirer tuuti mais Macky Sall dooméram ji 12 ans ndekete 12 ans de pouvoir 12 ans de entrain d' la nekkee waa lii waa lii APR xanaa gisu leen lii yéen kat taxawaal waratu leen daw leen ngeen ñu seen day dem jëlee ay audio Macky di ko partagé amatul dara audio kaay rek la am demul dikkul connexion moom xam naa ne buñ doon aj ba xaar xaar xaar ma andi borom xulóo lenn nag dinaa leen ko wax. Maki dugu na ci waso yi tas ko tas na senegal tas na tarikha yi legi nak dugg na ci ngewel ngewel lay tas khadim samb ak mbay ngewel ga nak dana tas tasar kooku mom maki ñewul maki moy borom marto bi nar na tas ngewel ba mu tas tasar khadim sambu mang ngi lay xaar ba ma xulo fek mbay peex ndax Macky Sall mi nga xamne mën ta wota ci rew mi ñame wota dugg ci rew mi election la bëgg mais neena na wota yena may moom moo fi jéggi ma gendarmerie ne day wote ñu ngi koy xaar xool nan lay def ñu ngi xaar wot may wax mu naan audio bi waroon na yaatu trop moom du arrêté de audio moom bu ko xasee ba long du ju xaar ñu dégluwaat audio bi man audio bi daf may rey mënu ma cee doyal xaar ma andi wax xaritam ba pare. xarit. Baye Ablaye nga ni. Baye Ablaye nga ni. xam nga kuy doon affaire bi gàllankoor eh waaw waaw. àndul la kenn sori tànk mbaam xeexam mbaam xeexu. dëgg loolu tëju fi genn gone nanguwu fi looloy ngor nga ni tëju fi genn gone nangu fi kër eh waay ya taw ger baa ngi doog a neex waaw waaw ngor ger baa ngi doog a neex ger baa ngi doog a neex gars yi xoolal Macky dafa ngëpp jox ko mais mbay peex mooy ngor mbay peex ngëpp lamb faare dégg nga Macky da ko gaarawaale mu gaarawaale Macky nee na Amadou Ba tëju fi kenn mbay peex man maa ngi sa ginnaaw Macky lu mu gaarawaale rek gaarawaale lu ko raw bul en arrière benn yoon saay bu gaarawaale rek dinaa la ko envoyé nga yow tamit nga dugal sa bos a ñu yeggal li nga dugal way yow affaire baa ngi doog a neex ñoomi ñoomi neen la suñu yoon newu ci Baye Ablaye Ngari xam nga koy góor waaw Ba eh, waaw waaw àndul ak kenn tëri tànkam baaba xeexal baaba xeexu dëggal loolu te ñu fi genn gone nanguwu fi kër loolooy ngor <laughs> tëju fi genn gone nanguwu fi kër. eh waay ya taw. <laughs> waaw waaw. ngor des na wax te xamoo ko. nga ni ngor. des na ko wax te xamoo ko. te xamoo dafa amoon benn xare benn xare bu ñuy wax lat ngeen de. kanam bu nekk ci bu nekk ci bawol tëgg te benn kañ. laa ilaaha illallaah. Hmm. kon gor saa ngi nii. gor saa ngi nii. gor saa kenn jàpp kenn. déedéet. tëjul kenn jàppul kenn moo tax Sonko lu mu def dëgg la. <coughs> waaw waaw dañ ko tëj ba muy bëgg a dee yàlla jox ko ceeb yi. waaw waaw <coughs> ay cam gaa yi ku ngeen faral ci gaaruwaale ëxlu <coughs> gaaruwaale ku ngeen faral parti gaaruwaale ku ngeen faral ñoomi ñoomi nen la de ku ngeen faral man de maa ngi ci mbay peex gor yen na ñaar ñëpp nag dama leen waroon da jël yóbbu leen gore ngeen dëkk fa ma xool ku daq def ak sa morom Macky nag amul fit loolu rek ma jaaxal bind na fi livre guerrier li mu fi taggoon maamam yeeg baayam ak ndeyam ak yëpp Macky daa ñëw dajj livre moo bindoon livre guerrier dajji ndey livre guerrier ba dem toog Maroc teg ko ci ay audio Farba ngoom Diop ne Macky mi ngi ñëw ah Macky ne ko sama ñëw nekkagul dëkk baa ngi pat léegi nag pare nañ ci audio boobu nañ dem ci beneen audio bi nañ dem ci beneen audio bi maa ngi lay nuyu di gërëm man président Macky Sall di la xamal ne gis naa sa taxawaay. asalaamaaleykum Pape Malick Ndour maa ngi lay nuyu di la gërëm man président Macky Sall di la xamal ne gis naa sa taxawaay di taxawaayu jàmbaar taxawaayu gor jamono ji nga xam ne ngor euh, xaw na tumuranke ci biir réew mi waaye nag nekk xale boo xam ne ak ndaw boo xam ne ndaw bu set loxo nga. ndaw bu yaru nga fi nga war a yaroo euh, ndaw bu xam luy valeur valeur jom valeur ngor valeur muñ ndax doomu aadama bu métte it dafa war a sàmm ngoram te loolu gis naa ko ci yow gis naa ko ci xale yu bari gis naa ko ci si mag yu bare bare bare kon nag maa ngi lay sant di la encourager di la dënk département bu ngin ngi neew Euh, defoon naa la sama wet nga nekk directeur général nekk ministre waaye am nañu yaakaar ne sa avenir ëllëg tam mun na gën a yaatu ndax euh, dëgg-dëgg fonk nga sa réew bëgg nga sa réew te bu la waa Guinguinéo jàppale ànd ko ak maire yi ànd ko ak population yi ànd ko ak soxna Daba Diouf ak mbooleem suñuy responsable rawatina si sama jigéen Yande Ndiaye yaakaar naa ni incha allah plus les maires euh, dina lépp dina baax maa ngi lay sant bu baax di la gërëm salaam. xam nga torox torox weesuwul nii de torox weesuwul réew bi defe na waa ngeen ginnaaw ay ndof lañ bay jël seen bopp di ko joxe ku daw réew mi ku daw réew mi man Macky Sall li mu mën ci waaw man Macky ko Macky buy audio day jaaxaan wala day dëpp kala naxakat ndeyam xoolal du bàyyi benn jeu lépp da koy kolante lépp normal da koy kolante mu mais Macky mën audio kattan ndeyam way way waay mais mais est ce que yéen nga ngi déglu audio Macky Sall man bu may audio sax damay xaw noy waye Macky buy audio du dégg ndeyam noy tott ndeyam ku doon terewaate audio kat top len audio yi pap malik Ndour mi fu mu gis audio groupe whatsapp seen bàyyi mujj na ci audio ki buñ toppoon ndeyam ci audio nuñ koy def wax len léegi campagne audio audio audio audio audio Macky audio mu bañ li xale yi doon wax ci nga mujjee de ñàpp nga ndeyam mujjee ci ojo de xam naa nag yal na nga audio ba sa gémmiñ gi kat ndeyam des si téléphone bi yal yal na nga am téléphone buy exploser nday sa gémmiñ parce que li ngay audio amu fi wàccee nga whatsapp ba zéro Macky Sall whatsapp wàccee nga ko ba zéro dara desitul whatsapp président de la république biir whatsapp fii laa ko gisee man président yi ma mës xam yëpp yëpp yëpp ligne privée pour la première fois dans l'histoire du lii day dugg ci livre de Sénégal 21e siècle ñu am un ex-président qui est devenu un whatsapper un un président qui est devenu un whatsapper wa nañ leen xaraju ndeyam waay sant ndeyam bat bat katt naa ndeyam xaraju waay ah man lan motax yalla na tooma un ex-président de la république ak téral gi ko yàlla ñu ne la uye Senghor ñu mën laa wax këram uye Abdou Diouf ñu mën laa wax uye Ablaye Wade mi ngi teru ca réew uye président Macky Sall c'est le meilleur WhatsAppeur le meilleur WhatsAppeur mooy Macky Sall l'homme des audios l'homme des audios le défi des audios le plus grand audioweur mooy Macky lii <laughs> l'ex-président du Sénégal est devenu un un WhatsAppeur audiobeur audiobeur waaye waaye génnal leen ma turu français bi xanaa maa Miranda bu ñëwee indil ma turu français waa lii lii lii ñun jar ñun ñëpp ñu daw songu géej gi lii lii ah góoru Marème góoru Marème jóge nga ci sarat wàcc ci cott day toog ci bërigu góoru Marème yaay doomeram dëgg-dëgg Macky Sall yaay mbaam àll Macky Sall yow malaaka bi la doon teral dafa juum wallaahi malaaka bi ñu woon pour mu ñëw teral la man mën naa gëm ne dafa juum lii ki mu ko waroon jox du yow yow Alioune Sall sax ku ko joxoon lii Alioune Sall sax moo la gën a nekk nit barki yàlla Alioune Sall ku ko joxoon réew mi Alioune Sall du def li nga def Macky Sall yaa ñàkk jom Macky Sall yaa juddoo ci gëléem namp ci mbaam ki yaay doome roo Macky yaa ñuus sa ndey ba ko toppaale ci yow ñuus ndeyam Macky yaay doome ram Makia fetang sa makia ndey Macky bereng sa biru bay Macky bon makia judo juddoo ci gëleem namp ci mbaam billahi Macky ya sa becho becho ni yaay ah li president de la republique yow nga tok ci réew mi sagalooñu wàcc war ñoo jox ab nga daw youtube ojo whatsapp walik léegi yow Macky bu whatsapp tëjee foo jëm yow président di wote appel privé yow Macky nga doon yéeg jet privé yor sa avion privé yor bateau privé yor lépp privé ay bajo privé fu la neex nga dem dóori fa wu wudang wang te yaa mujjee ci ay ojo moytu la joxe ojo nag ba doxot boo fi joxe audio ba doxot ñu ngi sa biir taatu téléphone bi toog parce que concentration bi ngay joxe ci ay ojo non lii lii lii lii du jàmmaay lii lii nattu la de lii man ba man audio audio audio gaaruwaale mbay peex bi may rey audio gaaruwaale mbay peex bi cam challenge challenge Barthélémy Dias dafa génn ne challenge ba génne cinq cent mille teg ci kaw table bi Oussou Bébé jël ay bébé légui nak salam ji bi ci ay bébé la Bart jubal na ci bébé homme politique yépp Ousmane a di jox li ñuy salan ji Anta Babacar moom yëkëti na ab gone gone gi nan ko sama ndey la jëm Anta poj bi du sama poj ndey Anta bama Anta nak gone gi rek ma ne ko li confiscation Anta bu ma doon yaay gone gi dama lay plainte li confiscation de bébé la kerno bokum nak kiko jox bébé mom bu lay bo nga xam sa dom sa sa bop lire bi dina tawé ñi nga jox len dom anta guna gi dañ ko jox anta rek mu defa ne ci ay pooju cuuj la tok pooju cuuj cuuj pooju ginaar moo ma ma ma anta mama anta ma rest rest wak wak wak wak waak waak waak waak waak waak waak waak anta ay cuuj rek la xam ay cuuj rek nga xam bëgg téye doomi jàmbur doomi rami yéen jéem leen a def lu ngeen mën bàyyi leen di topp guna gi waaye nag Ousmane tooñ nga nag dugg nga ci gaal goo xam ne yéen laay waxal après le 17 lii dinañ ko lijjanti parce que Ousmane tooñ na nag dégg naa ko mu ne ñun séeréer yi dañuy maq suuf moom mën nañ ko jox réew mi mu war a defar réew mu jël ne maag Bassirou Diomaye yëpp di ñu suuf xam nga Ousmane tamit moom du yoro waaye ci pëlii la de kii day tooñ de day tooñ <coughs> day tooñ de ku mu si lim ngeen malaa ngi lay xaar <laughs> day tooñ ci bii boor di tooñ ci bee boor yow am nga ñoo attaqué kenn yaageeg ñoom matewuñu yow boo leen attaqué ba toog ko attaqué waa léegi lu la dugal ci ñun séeréer yi usu bébé yow nag lu la dugal ci ñun séeréer yi ci li nga nekk génnal ci li nga nekk ñun kenn duñu affronté noonu de Ousmane <laughs> génnal ci li nga nekk après le 17 nag signé nga contrat bo xamné ba bala nga koy bëre ba mu jeex dinañ ko lijjanti da ngay seet li da ngay seet li kii war na taxaw fi nan ñu ma basiru jamaa dañuy maq suuf han ah? dama leen di laaj yeen ñi ko bëgg yeen lay laaj dama leen di laaj xam nga bu ma ko affronté ngeen attaqué ma yeen dal da ngeen koy yor rek da ngeen di yor seen lire rek lu ko lu ko neex def kenn du ko attaqué Ousmane moom kenn du ko attaqué lii nag moom neexul nag ma ah le 17 man dinaa dugg ci dinaa dinaa dugg ci géew bi de moo woote bëri man le 17 dinaa dugg ci géew bi na leen leer nag maa ngi xaar nag ba ngeen dugg ci après la 17 gis nga problème mu mëq suuf bii mu ne sama maam day mëq suuf Bassirou Diomaye day mëq suuf ñun séeréer yi dañuy mëq suuf mëqloo sama maam yële nga xam ne kenn kaa ngi ci 108 keneen kaa ngi ci 98 mu ne dañuy mëq suuf waaw lii nag lii lii li nak dina len ci woo ku mën ko ñëw jàppale ma ñëw ku bëggul nak nga wax ma ñu jall toñ baaxul ah baaxul ay ah na ngeen ne maa tooñ na ngeen ma ne maa tooñ man da xaar ma andi len audio do ko jall jàll. Samb Xadim Samb santa na la gërem na la kaddu gi nga wax Isma Diom nek na kaddu gu rafet dégg naa loolu it ko gisee ci ndaje Touba bi moom mu di as gor waaye yow it yaa yaay gor yaay as gor te kàddu gi nga wax ah kenn ku ne waroon na ko déglu nag ndax àdduna dafa gàtt te it jarul ñaaw waaye daal yàggal naa yaatu baax a baax a baax ñu delloo si seen xel te xam ne it ñi doon baax démb barki doon ba tey ñu ko def voilà ñu si na war jàngalaat rek àdduna waaye kàddu gi daal rafetlu naa ko lool jërëjëf jërëjëf Aliou góor dëgg yi. Yàlla lañ la lañ la def yàlla lañ la def daan buub di buub bi yor jet privé yor avion privé ba mu jee taxaw waaw Ahmadou Samb maa ngi lonk audio bii te audio bii na ngeen bu ko yaatalal man Macky maa leen di wax wor da nga ko war a jàng lii ah lii waay ah lii ah jël leen xaaral ma jël leen <coughs> audio bi mënu ma cee doyal <coughs> audio bi mën naa la ko tarif du début à la bi dama koy dégloo dégloo dégloo ba sama noppi naan ma maki maki maki audio maki audio maki audio maki audio maki audio ba beneen audio bu ma dégg sax dafa ma koy wax lii